an cheikhina ahmad attiyaani wa an saairi muqaddamihi wa xulafaihi ridan yaumu aljami wa radiallahu an cheikhina alxaaji malik an cheikhi alxaaji omar wa an saairi muqaddamihi wa abnaa'i ridan yaumu aljami assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki julli ci gannaaw bu ñu sante borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñeeyoo cant ñaan ko nguutuñ julin ci yonent bi sallallahu alayhi wa suñu wasila ci yàlla cheikh seydi ahmed tiyaani e, ñaanal gërëm cheikh alxaaj omar fuuti ak njabootam yépp ñaanal gërëm suñu wasila cheikh alxaaj malik suñu sëriñ yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem ñu ngi nekkoon ci téere bu màgg bi ñuy wax awdaxul masalik fi madxi cheikh seydi alxaaji malik muy téere boo xam ne fa tabarakallahu raaya la mu bëgg ci tënk rek doctrinu sëriñ bi ak jàngaleem mu agsi ci fa cheikhun laqad hazama allaina wa xisbahu ladaa qutrina sénégali wa huwa muxassari fa cheikhun laqad hazama annasaara wa kaydahum bi tabshirihim li diinihim daaimi almakri fa cheikhun laqad qaama wa jaahada billisaan بدون سنان بل بكتب موفر فشيخ له سكينة في مقاله ومن فعله بأدبه قد ينشري وشيخ لقد ضعن الأكارم رحلة لطلب العلا في ساحة الحاج فندري كذاك تواوا جنب جل وغايته kadaaka daka rufisk yascaw lidal ajri fa cheikhun yurabbi jiilahu bi taallumin bi njaarnde wa jag saaw jàmm gën xayru muqsiri kadaaka gosaas yamshi ila nnaasi jahratan fa yadcuuhumu lillahi mac dikri dil qahri fa cheikhun qubayla almawti minhu laqad banaa بجيل متين في التقى لينشري فشيخ لقد سمت له همة إلى سماء فها أهل السماء تفخري فشيخ لقد أما الرجال بحضرة إلهية في حينه لا منكر فشيخ قوام الأولياء وفيضهم ففي يده من نور قدس المكبر Euh, moom mu ngi continuer di seede ci cheikh Seydi El Hadj Malick radiallahu anhu mu ne seytaane ku bari man-man la waaye mënalul cheikh El Hadj Malick dara cheikhun sëriñ la bu màgg comme niñ ko waxoon tanwinu taadim la ndax moom day béggee li ñuy tudde lazizul muxaataba arab daf koy def mooy di wax ci nit te bëggoo wax ji jeex muy répété li mu doon wax rek donte li ñuy wax dégg nañ ko waaye moom day bége loolu te loolu moo yor daloon yonte yàlla Muusa keroog bi ko yàlla leeru yàlla feeñoo ci jaanibu tuur da nekk wama bi yaminika yaa Muusa lan moo nekk ci sa ndijoor boobu ndijoor bi li ci nekkoon mooy yat su yàlla yat bi la ko bëggoon a laaj bu ne yat la mu ne ko sànni ko pour mu def ko jaan waaye moom mbégte gi mu am ci ki muy waxal tax na mu hiya lii lii nii ba pare ne asaaya sama yet la lii boobu jarul woon mu koy wax sax waxtuma la dafa waroon wax rek yet la waaye waxul na yet la dafa ne sama yet ba pare atawakka alayha ci laay jàppandu wa ahushu biha ala ganami ci lay bàccalee sama jur pour ñu mën a am xob yi ñu lekk wa sax am naa ci ma maaribun ay soxla uxra yeneen lu mel ni lu ma nar a gàllankoor ci yoon bi ma falanka ci bu ma gisee jaan walla lu ma nara lor ma dóor ko ci ak yu mel noonu téere yi nee nañ loolu yent yàlla Moussa détaillé ci yet bi kenn laaju ko ko waaye bànneexu ki muy waxal moo tax muy bañ wax ji jeex mu ngi mel ni koo xam ne ki mu gën a sopp moo ko jox rendez-vous mu toog ak moom lañ doon wax bu bu bu paree lu ñor dina ci dugg lu ñorul dina ci dugg ngir rek bañ audience bi jeex ak jëmm ji mu sopp gis gi mu ko gis bañ tabaarakallaahu mu jeex tey ku mel ni sëriñ Cheikh Tidiane si ku yàlla mayoon nga am audience ak moom sa soxla bu jeexee itam lu ne di ko bëgg fàttali ngir yàlla bëgg gooy bañ audience bi jeex seen xaj Malik nag tabaarakallaahu moo tax borom téere bi naan fa seyxun fa sëriñ bu màgg la looloo tax ngir bége ko mu ne moom la laqad hazama laina dafa daaneel seytaane foo dégg ñu ne komba am na wala làmb ji verdict bi lañuy ñuy laaj euh, combat bu ñuy xaar nag verdict bi ba tey la xew rëy na mais bu Seydi Hadj Malick ak seytaane moom verdict bi dafa leer mooy Seydi Hadj Malick moo gañe ndax euh, daan na wax ne àdduna dina man lu ne waaye de du ko mënal Malick ndax bala ngaa naam danga fay ne moom daraam dadul dara daray àdduna wa xisbahu ak niti àdduna da ngay gis ne nitu àdduna ba ren ba ren boo bëggee bës wala bëgg tur pour ne da nga koy amee ci Seydil Hadj Malick foofu doo fa neexle ndax moom dafa geddoon àdduna la daa xutrina Sénégal wa huwa mu xasari moo tax euh, euh, vraiment seetaane am na lu ko metti trop parce que li mu bëggoon ci projet ci Sénégal pour yàq ko pour taal pour pour taal réew mi ni mu taale yeneen réew yi pour jaxase xol yi ni mu jaxase yeneen réew yi pour indi fi mbañante comme ni mu ko defee pour def fi ay guerre civile ci wàllu ethnie ak yu mel noonu Cheikh Al Hadj Malick ci mbaaxam ak terangay yàlla ci réew mi tax na mënu ko ndax soose bi bu bëggee wax ak tabaarakallaahu joolaa bi bu ñu dajee ci xadra bi lal ma naan wus ku ne xool sa moroom doo gisee ci joolaa wala soose mais yàlla ngay gis yonent bi Seexna Tijaani Seydi Hajj Maalik euh, tukulóor bi bu bëggee wax loolu séeréer bi loolu lay gis olof bi bu bëggee wax loolu manjaak bi loolu lay gis basari bi bu bëggee wax ak tabaarakallahu euh, njaago bi noonu lay gis et cetera kon moom Seydi Hajj Maalik raxas na xol yépp ba li ñuy wax ethnie ak li ñuy wax tariqa mu raxas ko ba seytaane li mu bëggoon ci perturbé mujj ko am loolu mooy bu njëkk bi te defe naa loolu mu ngi persister ba tey ndax pays limitrophes yépp ñi amul Seydi Hadj Malick job jàpp ñu doctrine am gis nga li leen dal ñun bu ñu demee sax ba suñu bakkan bëgg ñu yóbbu bu ñu indiwaatee jàngale Seydi Hadj Malick wala njabootam rek Mawlana Cheikh Hadj Abaz ñëpp dellu sewaat à la raison kon moom seytaane neexlewul fii ndax liggéeyam mu ne itam dafa amaat beneen ennemi bu taxaw woon jonkanu ko rek mooy ñi nga xam ne dañu amee ils se disent que dañoo amee mission une mission civilisatrice di européens yi nga xam ne ñoo bàyyi Europe ñëw fii ne na lañ dañoo ñëw pour civiliser faire civiliser les Africains pour ñu nekk à la hauteur waa ji tudde que mustaxribuuna mooy ñi nga xam ne dañ ñëw pour détruire suñuy culture ñooñu itam bi ñu ñëwee ak seen mission ambitieuse lu ñu bëggoon euh, localiser li ñuy tuddee haine entre nous ba nga xam ne kenn ku nekk doo àttan sa morom te boobaa politique la boo xam ne diviser pour régner euh, ils veulent de nous diviser quelque part bu defee bu ñu amee division nag ñoom ñu doxal seeni mbir te réussir nañ ko ci ceddo yi ceddo yi bu ñu defoon coalition du demee nii waaye ñu disperser leen ku ne ñu jox la benn une petite royaume gëm loola sa bopp bu ñu demee jekku kële après ci yow la ñuy mujjee ba ñoo ñëpp ñu détruire leen ñu bëgg nag ñëw ci Seydi Hadj Malick pour digganteem ak sëriñ si digganteem ak population bi ñu jéem ko mais moom flexibilité bi mu am nu ñu ñëwee rek mu ànd ak ñoom noonu bu ñu ñëwee weex mu ñëw weexandoog ñoom bu ñu rougee ñu mu rouge ndax xam rek àdduna te itam xam ne ñii bokkul ak ñoom mission daf leen jàppe woon comme ay doomam sax yoo xam ne bu leen waree wax dëgg mu wax leen ko waaye bu leen waree assister mu assister leen moo tax mu ne laqad fa cheikhun laqad hazama nasara de même que noonu itam ni mu gañee iblis noonu la gamee gañe nasaraan yi wa kaydahum ak pexe yi ñu amoon pour lal ko ci réew mi pour nekk fa euh, éternellement tubaab yi seen décolonisation ci pays africain yi bett na leen ku ne xam na ne euh, li ñu déployé ci des moyens financiers ak euh, des moyens tabarak des routes terrestres des routes ferroviaires et maritimes liñ ci dépensé ci ay pont boobu xam nga loolu kenn du ko dépensé pour jàpp fii da nga fi war a jógee dans dix ans te les années quarante jëm cinquante lu ñu waroon a dépensé ci ay batiment ci ay ay defoon nañ ko fi cinquante ku leen waxoon ne dix ans après dinañ décoloniser ñii duñ ko gëm mais boobu xamuñu ne nit ñi ñu ngi mur ndax mag mu yeewu mu mel ni Seydi Hadj Maalik jàngale première guerre mondiale jaar fi yéen ñi deuxième guerre mondiale jaar fi jaar yéen ñi. nga bëgg nag persister te encore di coloniser ñi àdduna du ko nangoote xanaa kay nga def néocolonial euh, néocolonialisation waaye colonisation bi dabti kooku moom du mën a nekk ci moom Seydi Hadj Malick nag xeexul ak ñoom xulawul ak ñoom mais itam contourné na leen ndax bokk na ci benn dañoo ñëw ci moom proposé ko pour mu nekk la haut cadi de Saint-Louis le haut cadi de Saint-Louis mooy premier magistrat bi nga xam ne nii mooy atte euh, ci Saint-Louis boobu liñ ci jubluwoon bu ko accepté lu muy doon moom fonctionnaire française ñoom ñoo koy fay te ku lay fay nag di la jox ay instruction euh, Seydi Hadji Abdoul Aziz moo ko nettali radiallahu anhu nee na mu ne leen ah mën naa nekk mais à une condition wala ci ñetti point laa koy defee benn bi da ngeen may tabaxal benn pale bu xaw a mel ni seen bos bi ba nga xam ne duma leen envier dara duma leen ñeewe dara ñaareel bi dangeen may fay salaire boo xam ne nii duma soxla ku ma ger nga xam ne loolu moom inutile même ku may ger sax maa lay ëppale ñetteel bi nag mooy dangeen may jox ndigal may attewoo alquran sunna ndax man yàlla laa gëm ak yonent bi kon mënuma woo ci kudul alquran sunna tubaab yi ne ko waa baax na dinañ dem dinañ ko seet sëñ ab nee na ba tey gisuñu ko ndax moom bi muy wax xam na ne duñ ko defal lool koo xam ne concurrent la du bëgg defar pale boo xam ne toll na ni bosam ndax influence bi ngay am ci population bi du la jox itam benn enveloppe de salaire boo xam ne nii tolloo nag ñoom bi ñuy am ndax influence bi après mooy tax presque roi rek la ñuy organiser kon royaume duñu du nanguwu ñu itam alquran na ndax loolu indiw leen tubaab yi nekk dinañ ko seet ba tey gisaguñ ko nga gis ne kon mais tubaab yooyu itam ci wàllu religion dañoo ñëw indi mission civilisatrice mais dañu ànd ak itam ay religieux ñoom seeni religieux bopp di leen dugal ci nit ñi di leen imposer nit ñi di leen mettre dans des bonnes mo euh, des bonnes conditions ñooñu di tabax ay église ay jàng yu mag di ci jàngal nit ñi di def tabshir mooy di yóbbu nit ñi ci seen religion te ñu bari nekk nañ ci victime moo tax mu ne wa kaydahum tubaab yi ak seen pexe bi tabshirihim ci missionnaire yooyu ñu daan joxe li diinihim ñu leen yóbbu ci christianisme daa imil makri perpétuellement ñuy pexel jullit yi yooyu nag réussir nañ ko lu mel ni Côte d'Ivoire réussir nañ ko ci pays africain yu bari mais wax dëgg yàlla li ñu dépensé bu ñu yëgoon fii duñ ko fi dépensé ndax église yi ba tey ñu ngi fi ah, ak kii yi tubaarakallaahu euh, euh, bâtiment yañ tabaxoon ak mission yi yëpp yëpp a ngi fi ak financement yëpp mais wasifa yaa ngi jolli xadara yi mu ngi gën a bari te xadara yi kenn financé wu ko wasifa yi kenn financé wu ko nga xam ne kon yàlla daal lu ko neex def waaye taxawaayu góor gi gis nga ni mu rëy kon tubaab yi lajj nañ ci cadre boobu missionnaire yooyu lajj nañ ci cadre boobu mais itam seytaane ak ñi ko ñi ko ngemboon lajjoon nañ ci cadre boobu te loolu mooy confirmer li ñu nettali ci maam Abdou Hamid kan li mu nekk eh, kawlak tabax fa juma wala jàkk di wasifa matin et tubaab bu ñuy wax blocar ne ko daal vraiment da nga may lijjal parce que heure bi ngeen di wasifa suba gi day fekk yeewooguma te groupe bi daf may yee foofu sax rajo amul waaye moom beew na ba àgg foofu euh, seen nodd itam heure bi ngeen di nodd bu dee treize heures daf may lijjal dañ koy yéegal ba quatorze heures fekk ma sieste ba yeewu ak yu mel noonu ma Abdou Hamid Kane dugg otoraay jóge Kaolack ñëw Thiès wàcc dugaat ka euh, train bu Saint-Louis wàcc Tivaouane ñëw wax ko Seydi Hadj Malick nee nañ fa mu toog mu ne ah wa ñii kat ñu ngi bëgg a ëppal moom la wax jël benn big wala daa ak xalimam way ci wayam bu siiw boobu gis nga ni ko yàlla barkeele ala ya rasul allah ya afdal alwara fa ha nahnu fi dayqin shadid taraakum fa ha nahnu fi dayqin walam narju farijan siwa allah walhaadi li sublil makaarimi saddaqta ala ma qulta fi awdi diinina gariban kama fi lbad'i ya xayra rahimi ilahiya fajcal ahlana ahla gurbatin wa ahla ittibaaci sunnatin fi taraaxumin addu alayha binnawaajidi misla ma bii qaala fi isaai nadratu hashimi jox ko ne ko boo wasifaatee dee ko jàng yonent bi la la adressé lettre bi directement ne ko nag interveniral parce que nag ñii ñu ngi bëgg a ëppal te mission bi nga ma jox ñu ngi koy bëgg a salfaañe bay tere wasifa nee nañu bi mu demee ñu commencé di ko jàng dañ jekki-jekki France ci boppam ñoo au blocage ne ko dañ la soxla sans suite nag sans suite mooy moom xamul demande d'explication kenn jox ko kaay rek kaay lañ ko ba mu demee ba tey dellusiwul nag xam nga kook du tereeti ndax bala ngaa tere danga fii ne nga gis ne kon moom taxawaay bu rëy la ma Maodo am yal na yàlla yokk leeram mu ne fa cheikhun laqad qaama wa jahada billisaan bi duni sanaanin bal bi kutbin muwaffari moom ñi ko précédé ñu maam Maba Jaxu Ba suñu maam Cheikh Alhaji Omar Foutiyou Tall euh, Samori Touré et consorts les résistant africain ñoom dañ gis ne ñoom ñëpp dañoo taxaw janoog tubaab yi tubaab bi jéem leen a sàkkal pexe moom bi mu ñëwee gis ne bokk na ci stratégie boo bëggee ñëw def ñuy faas dañ lay yóbbu rek te bu sa liggéey du am suite mu ne mon kon nan lay conviver avec eux mais ci jàmm ak salaam ba mën a doxal mission parce que bala nga naam danga fay nekk moo tax doctrine am boobu mat naa roy mu ne laqad xaama jug na taxaw wa jaahada mu jihaad bil lisaan ci làmmiñam maanaam moom ngi naan diw dafa neex làmmiñ ma Mamadou boo koy dégg ba dégg ba ba mu toog buy wax ak waxam yu dal yooyu waxam yu yaru yooyu waxam yu tegginu yooyu yow danga nga naan kii xanaa magie lay def effectivement magie la ci xol parce que da koy nangu te day logique bi duuni senaanin jëlul jaasi nag bal bi kutbin au delà da waxam yooyu ay téere mu wafiri yu baree baree bari la jël bind ci xam-xam yoo xam ne boo jàngee wala ñu firil la ko looy mën a nangu la gis nga ba nos jours amul benn téere maam Maodo bu ñu lay firil nga dégg ci lu sa xol di waccoo hmm? wala loo xam ne dis na ci sa nopp déedéet lu logique lay doon lu neex a dégg donte dëgg la sax waaye dana la ko wax ba nga xam ne lii mooy dëgg moom sagesse boobu la ko yàlla may ndax genn góor daf ko bind lettre ne ko di ko jam ne ko mag ñi ngay wax ne yaa leen donn ñoom dañoo jihaat te yow ba tey jihaatoo mun Cheikh Alxaaji Omar dafa ma Maba Jaxu dafa jihaad limal ko ay mag Amadou Lamine Dramé dafa jihaad Cerno euh, Almaami Boubacar dafa jihaad euh, mu ree na olof olof de ku mu dugal la bëgg waaye Malick de jëmul fen olof de ku mu tëñ la bëgg waaye Malick yéegul ba benn bés ñenn ñi ñëw ne ko ah, waaw taalal jihaad taalal jihaad di tëb di dal boo taalee jihaad ñu jàppale la mu ne waa baax na dégg naa ci benn bés tabaarakallahu muy taw fii ci Tiwaawan di taw taw bi metti lool mu toog déglu déglu déggul nodd mu xuus ci taw bi dem noddal boppam def ay naafilaam toog ab diir déggul kenn ku yëngu ah ba mu mu salaatul boppam mu salaatoo ñaari nit ñett la gis mu jullee ndoog ñoom ñu pare mu ne waa diw mun ne mu ne ana nit ñi kaasi defe naa taw bi de xam naa moo tee nit ñi ba mënuñoo kii mu ne ay olof moo Malick ko ko ko ko bali taw ko bali taw di tere julli si bu bu bali fital tàkkoon foo jëm te ñooñu ñoo koy proposé pour jihaad naa ah, olof de bu ma bu ma olof de olof de bu ma te bu ma tekkiloo sama sàkket du ma ko teg moom du tax ma tekki ko ndax dama dul xam ndax bis bu ma koy takkaat dana ñëw jàppale ma ci wala déet koo xam ne nag wóoluwoo ko pour tekki sa sàkket kooku xaw ma fan ngay taali jihaat te loolu dal na ñu bari gis nga bi ko tubaab yi woowee pour mu joxe demande d'explication defal ko demande d'explication mag ña ne woon dañ koy gunge ndar yépp bi muy duggoo gouvernance benn nit bi mu gëstoo benn nit muy góor gi baaba jongo bu Podor di couleur di nitu yàlla bu mag bi mu defee audience bi ba génn nag mu ne baaba ana nit ñi kaa si ñoom de dafa mel ni dañoo daw ndax jàppoon ne tubaab bi dalay jàpp mu ne ah baaba déedéet tubaab bi nag bu ma jàppee euh, loxo euh, tënk sax karaw te tënk ku ne xam ne du sax karaw mu ne parce que bi ma toog taxawee ak ñoom. yonent ci moo nekk sama ndijoor Seydi Ahmed Tiyaani moo ne sama càmmiñ te bu ñu naroon leneen rek ñu dal seen kaw kon nag duñ ma jàpp waaye mu xamee ci ne daal bari na lu leen nit ji wax fekk na bu bu bu bu piir bi ñëwee taxaw doo gisati kenn moo tax moom mu ne kon bi du ni sinaanin gi jël jaasi moom ja jàppul ne boobu idéologie am la donte ku ko gëm itam loolu nga gëm waaye dafa bind moo tax ñaari ñaw ko moo am ñaw ka jaasi wala ñaw ko xalima xam nga xalima dafa ñaw ba ci big bi nga yore nii gis nga big bi fii bind moo gën a lew dafay sew ruuj pour nga mën a bind loo xam Mamadou nag ne comme jaasi dafa ñaw te day liggéeyal diine ndax day tuur deret mais itam xalima dafa ñaw moom itam dafay tuur plume nee na deret ki ko tuur moom moo am gënal après dafay dee dem àjjana loolu baax na waaye nee na xalima ki ko tuur tabaarakallahu tuur na njariñu keneen ndax généralement ku jàngalool lool ba àdduna tukki jihaat nga ci moom nga gis kon jihaatu deret ak jihaatu xalima ban moo gën a yàgg bu xalima moo gën a yàgg parce que ba tey ñu ngi jàngale téere yoo xam ne ëpp na dix siècle moo tax moom mu jëloon jihaatu xalima ci jihaatu euh, jaasi mu jël itam jihaatu làmmeñ bu sell ci jihaatu jaasi gis nga kon loolu lañu ñu tuddee socialisme loolu lañ tuddee tabaarakallahu politique morale bu baax boo xam ne moraliser ne nit ñi ba ñu nangu wooteem te bantu xat dammul comme niñ koy waxee waaye dina la yéem ci Mame Maodo dafa dal moom nit ku tranquille la doo wax sax ne nit ku nite la nit ki nite gi moom ëpp na mais dafa dal dafa tranquille te loolu bokk na ci njariñ bu baax buy jariñ borom mission parce que borom mission bu ëppalee lu tëb mu tëbak tëbak loolu defe naa résultat am du sori moo tax mu ne fa cheikhun lahu sakinatun fi maqaalihi Seydil Hadj Malick dafa dal ci yaram ba boo ko doon wër ñu ne la mu ngi nële boo ko gisee mu toog rek toog ak jàllaabi bi léegi mu jël mbaxane jàllaabi bi muur ko ci kanamam ne boo janag moom sax doo ko gis da koy nuyu mu soog koo muri ndànk ba nga seen bët yi nga nuyu ko buy wax ak yow par baat lay wax comme ñun ni ñuy waxee mel ni kuy rab moom daawu ko def par benn baat lañu lay wax gis nga loolu dégg nañ ko ci waxu Serigne Cheikh si Sy euh, ni muy waxe baat par baat noonu la turandoom daan waxe Cheikh na Tidiane mais noonu la si ajma itam daan waxe buy wax ndànk lay wax te waxam du bari ay doom nangam moo tax mu ne lahu sakinatun am na ak dal fii maqaalihi ci waxam moo tax daawul wax ba àggal nga ne ko loo loo wax moom waxam benn yoon lay doon ndax fasaaxa bu ko yàlla may mais wa min fi'lihi jëfinam itam da ciy gis dal buy dox ndànk lay dox doo koy gis muy waaxu ba personnalité am dem ndànk rek lay dox nga xam ne force tranquille mooy dox nii situation itam bu xewee lu mu metti metti moo xam ci diina ji la wala ci réew mi boo ko waxee dana xool les voies et moyens koy faje waaye doo gis mukk ci wax inam wala doxinam mu salit te bari na ku mer salit bu yëf yi baaxaatee la ngay dajaat pour dabaatal lale ñàkkatee rek moo la ko def mais bi ëdda bi yi teggi moom xat yu nasher yi moom lañu siiwal ndax wax nañ ne sëriñ si mu bokkaloon jamono amul ku ko ci seedalul yar dafa yaru woon yaru ba yow boo ko fekkee mu toog dangay nga yéemu ci yàlla ci yar boobu ndax yaru rek bariwul wax bariwul yëngu bariwul dara moom daal jàngale lay def tegul boppam itam fenn fen fu mu tegul mbindeef yi jàpp ne ku mu gis moo ko gën donte nag moom kenn du ko tardeel ci mission mu ne la jikko yu mel nii ku ko dégagé ci jamono jooju jamono yi dix-neuvième siècle jikko yu mel nii ku ko dégage nit ñi duñ la soxla moo tax mu ne laqad ak akabiru moo tax nag sëriñ si laxas nañu rixlatan ak laxas ak ñu baax ñi li talabil ula ngir bëgg ak kawe ci moom fi saaxatil xaaji ci ëttu Cheikh Al Hadj fan mu ne fi ndar yi bi mu nekkee ci ndar comme Saint-Louis la njëkk a nekk ci capital ndax dafa am lu mu xam da daan wax ne sëriñ bu la gën a exposé wu ci capital bi moom la liggéeyam ak message am di gën a jàll ndax koo xam ne fa mu dëkk di nga dox lu ëpp cent cinquante kilomètres ci mbooy mi pour soog a daj dab këram kooku bu fa nit ña defee demee itam ñamuy yar lu bari moo tax moom bi mu wëree jàngi dem Waalo dem Fuuta dem Muritani wala avant muy dem Muritani après nag nijaayam daf ko ne li gënoon mooy nga dem ci capital ba ci Mor sàmba Jéeri Jeng sa wóllëre bàyyi la woon bokkoon nañu daara nga jàng fa euh, xamaale fa itam àdduna lu bari bi mu ñëwee Mor sàmba Jéeri Jeng bi mu ko séenee ak njoolaay bi ak taxawaay bi karaw gi ak nopp yi ak meloktu couleur gi mu ne ah Cerno Ousmane Sy de maam Ousmane Sy muy Demba Khouré bu doon dund ba tey ma ne mooy ñëw na le waaye xam naa ne dundatul bi mu ñëwee nuyu ko nekk doomam laa mu ne ko du dañ lan la woon mu nettali yi mu nettali yépp ka doom bismillah fii de daara la mu boole ko góor gi Ahmed njaay ma béy bu ndar mu fa doon jàng maqamatul Hariri yi muy littérature ci haute qualité nekk fa ba ca la fa amee soxna ak ya ci xew yépp euh, jamono jooju nag mu ne foofu Malick Fawad lañ koon wax dañ koy tutuwaaye foofu la quitté nag dem màkkatal mukarram bi mu dellusee dellusewaat ndar ci lañ koy wax alxaaji Malick mais nee nañu avant ñu koy wax alxaaji malik bi muy tudda Malick Fawad ñu commencé dégg turam daan nañ ko wax ne anu laaji Malick maanaam nañ dem laaji ji Malick noonu la tuddoon avant muy tudda alxaaji Malick anu laaji Malick ba mu dem nag moom aji ji ba ñëw ñu naan nag alxaaji Malick damu demee ba yëf gën a yaatu ñu naan cheikh alxaaji malik sëñ Babacar yokk ci seydi cheikh alxaaji Malick nga gis ne tur yooyu yëpp yu mu liggéeyal bopp la boppam la mais loolu bi mu nekkee ndar jege gouvernance tabaarakallahu nekk ci capital bi di jàng di jàngale nit ñi nag commencé ko dégg waaye ndar fekkoon na nag mu am ay sëriñ yoo xam ne bokkuñu woon ci tariqa bii mu bokk te Cheikh Omar mi doon patron nekkatu fi kon dana laaj beneen environnement bu gën a propice par rapport ak âge ndax ay eneem ñoo fa nekkoon ca mujje mujjee euh, tuuti foofu ci sàkku teefu maam Majoor Amar nga xam ne tabaarakallahu maam Gumba Amar mi ko jur taalibe Cheikh Omar la maam Majoor nag di taalibe Seydi Hadj Malick bi ñu waxtaanee ba ma maam wax maam Gumba Amar baayam ne ko am naa koo xam ne boo ko gisoon di ko mën a jàppe Seydi Hadj Malick Euh, di nga ko man a jàppe Cheikh Omar euh, ba yàlla dogal ñu am occasion mu dem njarnde gis maam Gumba Amar waxtaan ak moom ba kooku xam ne kii la doon wër mu ñaan ko mu toog foofu pour daal ñaar moo mën a am gannaaw bi koy yeesalee mu takk ay bagage am moom góor gi fu maam Maodo fanaan mu fanaan fa fu mu yendu mu yendu fa yore perkal bi ñu koy sàngee bés bu faatoo bëgg na daal Maodo sang sang ko sang ko jullee ko rob ko wala boog moom Maodo mu toog fa xaar loolu ndax boobu màgget na lool tabaarakallaahu mam si aj maay ne nag del mag moom teraanga laa ci xam wax dëgg yàlla bëgg ànd ak yow fu ne nga jëm fa kooku duma gënal loolu moo ko fa bàyyi kon bi mu jógee ndar jam na njaarnde googu mais laata muy dem njaar nde moom dafa mas gëm ne kenn du dunde yalwaan da nit gor dafay liggéey bi mu nekkee ndar ak situation sociale ya mu fa dundoon defaat na retour ca waalo doon fa bay benn tool bu ñuy wax ngàmbu cille ngàmbu cille googu mook maam Malick Sarr ñoo fa nekkoon lu mu fa masaana jële ci teraanga jox ko ay juróom mu yaayam ak nijaayam ak lenn ci soxnaam maam Roqe Njaay ak tabaarakallaahu njabootam gi mu amoon ca ndar ñeneen ñi li ci des mu séddale leen ko moom noonu la ma a mel ngàmbu cille googu installé woon na fa de même que Gaaya de même que Dakar de même nit ñi daan nañ jóge foofu di ko fekk si mais moom itam dem na ci place yooyu pour partager ak ñoom li mu am moo tax mu ne kazaka Tiwaawan ngàmbu cille wa Gaayata kazaka kazaka Dakar romb nañ Dakar taxawaay yi mu fa defoon ak mag yu lébu yi ak Rufisque daan na fa installé parce que tabaarakallaahu ay naar dañ fa nekkoon daan jaay téere te port bi fa la nekkoon mu fa daan ñëw di jënd ay téere am fa ay wëllëre tabaarakallaahu góor gi mu daan dalal foofu xaadir la ñuy góor gi maxtaar ñang bu mag mag ñi ñaan ko daal tabaarakallaahu daan ka fa fekk mu leen di defal ngan bi ñu demee nag ba ñoom ñu commencé fa bari moom ay taalibeem ñoo ko ñaan nag pour tabaarakallaahu ñu délogé ko muy dal ci ñoom te Seydi Hadj Malick ne ah bu leen ci Maxtaar joxee ndigal rek aw ma aw ndax moom cousin am la ci Jolof mooy maam maamu euh, Mademba Ndiaye tey jii nga xam moo jur woy juram bu jigéen bu ñoo soxna Safeetu Ñang euh, maam Maxtaar nag jox leen ci ndigal ca la ñu mujjee tabaarakallahu ñoom di ko dalal ñoom alqaadi Aliou ja maam alxaaj Daawda Ndiaye ak mag ñafa nekkoon ñëpp qaadi Jibril Ndiaye moo tax Rufisque yes aw ñoom ñëpp dañ daan ndox li dil ajri ngir am teraange ji ci liggéeyu Seydi Hajj Maalik fa cheikhun yu rabbi jiilahu bi taallumin bi njaar ndew a jeg saaw jàmm gën xayru muqsiri Seydi Hajj Maalik bi dajalee nit ñi ci waxin ci jamono joo xam dajale fukki nit rek jafe woon na booleeg vigilance bi tubaab yi amee ku dajale lu mat trente personnes bootul dinañ la jox demande d'explication ku ñu gis itam ngay wëndeelu nekk ci train bi dëkk bu gaar bu ne ñu wàcc fa ndax gaar boo wàcc day am day am chef de gare chef de gare bi dina def traçabilité am ci rapport am wax ne ku ñuy wax diw wàcc na fi euh, loolu nag bu baree dinañ la wane la dox boobu yëf yi melul nii mais si xaj ma avec tout tout ça désintéressement bi mu am ak liggéeyal borom jaral na ko ak yeneen ju sell ji mu am moo tax mu ne fa cheikhun yu rabbi jiilahu yar na génération yëpp à l'époque bi taallumin ci jàng ah, bi mu ñëwee ci réew mi gis nit ñi commencé koo topp moo xam ne dajale nit ñi rek waara leen ñuy daanu jél la ko mbëkk a miir yóbbuwul kenn fen non yóbbuwul kenn fen parce que boobaa yow mi waaraate boo noppee après mu jeex ndax ñooñu daanu leer bu yëf yi giifee rek mu jeex après day giif moo tax ku ñëw ci moom dama la bëgg dama la sopp jooy mën a indi alwa ba indi alwa bële ak daaj soo mu ne bind mu bind la baasin mi war nga ne ko mu ne ko waaw loolu ngay def si moo xam mag la nag wala ndaw euh, xam nga da ngay découragé ci àdduna yëpp tukki waaye mu jàngal la rek ba nga xaw a tane ba man dara ci alxuraan mu yabal la fenn ne la toogal lii ma la defal defal ko ñooñ mais yéeguñu yëg ndekete jàngal na réew mi yëpp ndax boo jàngalee nit fukki nit boo leen dajalee jàngal leen fukki at ñoo ñu dem jàngale fukki at ñañu jàngal wër jàngal ñeneen fukki at loolu 30 la te yooyu yëpp fekk na ko fi ndax moom jàngale na 33 ans yu tojul kon trois générations jàngal na ñii ñii jàngal ñii ñii jàngal ñii yooyu yëpp moom fekk na ko fii ci àdduna bi moo tax mu daan wax ne ku fi jàngalul ci réew mi kala jàngal maa ko jàngal ku ma fi dul sa baay sa baay maay baayam waxin la lii moo tax ndax moom dafa jàngale te ku jàngale 33 ans fonction publique rek ku ci jàngale woon 33 ans vraiment dinañ di nga boowatul nga jàngale di nga jàngale ndoo avant ngay retraité di nga jàngale ndoo ak koo xam ne sa élève moo ko jàngal du dëgg loolu nag yàlla may na ko mu yar nag génération bi taallumin bi njaar mbe ci njaar ne ba mu demee maam Gumba Amar demandé ko mu toog fa effectivement ci lañ ko fa utal tool mu ne nag mënul nekk moom fu mu dul bay ñu wutal ko fa tool bu yaatu wutal euh, ko fa kër mu nekk fa ak soxnaam ak njabootam dund fa nag dund bu euh, précaire wax dëgg yàlla bu primaire bu metti lool ci wàllu santé bu metti lool ci wàllu euh, environnement bu metti lool ci wàllu géographie ndax ni mu tëdde waaye teewul mu toog fa mag ñi di ko di ko fa fekk si nag di fa fekk si tabaarakallahu wax nañ ne juróom-ñett téeméeri mag nekk nañ fa ak moom tabaarakallahu ñu wax ne ijaasal na juróom-ñaar fukki mag ci jamono jooju ku ne xam ne loolu mbooloo mu kenn xamul nu mu toll la soixante-dix personnes rek dajale ko ci jamono jooju mbooloo mu kenn xamul nu mu toll la ndax ba jamono jooju population sénégalaise bu matee un million bari na kon kooku ku fa dajale sept cent personnes wala sept cent euh, wala wala wala tabaarakallahu soixante-dix muqaddam loolu lu rëy la mu yar leen nag ba xelam dal yàlla dogal ci septième année ba maam Gumba Amar ci la faatu te looloo fa bàyyi woon maam Maodo mu sang ko sang ko nee nañ ci tàkkusaan gi rob ko ñu fi ko mu julli timis miras ka julli fajar takk ay bagage am dem nga xam ne kon pare woon na foofu ndax dëj ba toogaatu fa vingt bi mu dellusee nag ndar ci la doon xool nag benn place bu idéal pour man fa nag installer dem Tëngéej daja fa ak ñaari commerçant ay traitant ku ñox Jibril Top ak Jibril Guèye ñooñu ñoo ko demandé woon est boo mënoon ñëw Tiwaawan di ñu defal foofu tafsiru Qur'an ndax ñun ni ñu déggee ngay tafsiré bokkul ak yi ñu miinoon mu àndoon ak ñoom nag jóge Rufisque ñëw Tiwaawan pour bu defee tafsir bi après continuer Ndar yoon woow nag la ñibbiwaatul ba tey ndaf ndekete Tiwaawan boobu moom la ko yàlla euh, programme woon daan na wax ne Tiwaawan kër yàlla la yàlla tànn ko man Malick ma doy ko ci mu teg ma fi bu ma doon tànnaloo fu ma dëkk gaaye ga mu juddoo wala jolof ga sama baay juddoo fa laay dëkki waaye fii nag kër yàlla la mu tànnal ma ko ma toog fi moom bi mu toogee Tiwaawan comme ville boo xam ne fekk ne nit ñi dëkk pare mu demande fi tool nekk nag di ci dox ñaari tool la mujje am benn bi mu ngi nekk ci sud Tivaouane bi ci des mu ngi nekk ci euh, est Tivaouane bi nga xam ne moo nekk ci sud bi mooy jàmm gën tabaarakallaahu ñun daan nañ fa dem di bay euh, Seydi Hadj Malick di fa bay ak njaboot gi à peine 7 kilomètres wala de plus rek la nekk ci sud de Tivaouane tool baa ngay dox ba tey Baye Cheikh Seydou Mouhamadul Mansour moo ko doon dundal waaye doom tey ñoo ko yore yal na yàlla yokk leeram euh, bu dee jag saaw itam tabaarakalla Mawlana Cheikh Hadj Abbas Dabakh siiwal na ko euh, euh, ba nga xam ne nii mu def ko ñaari dëkk maanaam ab tool ak dëkk bi mu ko xaajee benn bi mu tuddee ko Fass bu Seydi Ahmed Tidiane dëkkal fa ay doomi baayam ak i bokkam euh, beneen bi mu def ko tool bi ku xëy ci dëkk bi dem ci tool ba liggéey ji xayru muqsiri te gàttañ lu wuti ndax moom bëggul di wéeru ci kenn yooyu tool rek la defar mu ne déedéet kazaka Gossas mu dem ba fële itam ci au cœur du Bawol mu taxawal fa tool bu ñuy wax Gossas euh, muy tool boo xam bu ñuy Gossas la ne euh, mujj dundam sax bareetu fa tànk ngir bañ ñu ñu ñu jàpp ne dara moo ko fa yóbbu waaye tool la woon bu mu daan dem euh, mais bokk na ci stratégie am da daan dem ci nit ñi li ñuy tuddee pro proximité politique proximité. da ngay jekki-jekki ñu ne Mame Maodo ñëw na dakaar maam Maodo ñëw na Rufisque Mame Maodo ñëw na euh, euh, euh, num Pire Mame Maodo ñëw na nangam kon nii sëtam yi di def di dugg ci oto yi di dem ci gàmmoy conférence yi seen maam la jóge moom doonul woon ku toog rek ak li muy emploi temps li muy xat-xat da daan def visite de proximité loolu jur na tabaarakallahu yu baree baree bari mu defar ko suñu bàyyi Pape Malick nettali nañu ko góor gi nga xam ne taalibeem la woon te dëkkoon ca Louga njàmbur ba pare daan jëfandikoo pon Maam Maodo da daan jekki-jekki rek xëy rek dem seeti benn taalibeem doo ko foog sax ndeke kooku jël na weer da ci moom waaye pon moom da ko daan jëfe te mënu koo bàyyi mu yàgg ci lool benn suba teel dañoo wës fa ba àggal muy commencé leer mu naan soxnaam indil ndékki li te indil ma sama gën a googu naka naka la taal di di muqi jekki-jekki am ko ne asalaamaaleykum ci digg kër gi mu ne soxna si demal xoolal ma kooku di nuyoo kan la mu génne ne ka nijaay baay alaaji de moo fi ñëw mu ne ko bàyyi alaaji man man mu ne ko maam alaaji Malick te moom mu ngi tuux de pareegul moom xamatul ndax day dugg ci ron gi xamul ndax day nëbb pon bi wala day kii ba yàgg góor gi am fulla ne soxna si nekk mu agsi nekk mu agsi lu mu man tey lay feeñ tey jii ah ñu recevoir si xaj maay mu ñëw xetu pon gi xetu xetu pon mënul nëbbu mu nuyoon teg moom si xaj maay ci kersa gi sëgg rek mu ne ko si mu naa ah, mu ne ko ah loo man de tey lay feeñ man de yow laa gëm yow laa sopp waaye nattu laa am gën na gii mënumaa fexe ba tàggoog moom bi nga ma mayee werd ba tey nu ne def naa ko waaye mënumaa fexe ba tàggook moom loo man nag tey lay feeñ dina dinaa tàggook moom ci moom tey wala wala wala ma xam ma Maodo muuñ ñaa ah, waaw baax na def li muy def ñaanal ko waajoo keroog ngay tux kooku dafa am fulla ndeke dina feeñ dina dañ tey wala ma xam lu may loolu li ma ci bëgg a jàngale rek mooy da daan def visite visite de proximité loolu moo taxoon mu am tabaarakallahu li mu am ci nit ñi waaye nag demul rek di sàkku dara ni fa yadcuhumu lillahi ma dikri zil qahri bu demee nag ci nit ñi di leen woo ci euh, jaamu yàlla di leen woo ci tudd yàlla ndax sëriñ bi bu na leen del del jaamu yàlla nga ñëw gis ko moom wala mu set la nga gis ni muy jaamoo yàlla mu ne la del tudd yàlla nga gis ko fu mu jullee yor kurusam ba yow mi mu gane si ba watul doo am jotu waxtaan ak moom bu fa jógee dina bàyyi euh, jeexital ci yow fa cheikhun qubayla al mawti minhu laqad banaa bi jiilin matinin fi tuqaal yu nashri mu mel ni kon jàngale na 33 ans ci différentes dëkk ci ay tool tool yi dañuy foog ne tool rek la mais tool yi daanaka da ngay jàpp ne séminaire la tool euh, nawet bi dina durer trois mois bu masaana dem jeeg saa wala jàmm gën 3 mois yi léeg-léeg fa la ñuy camper ne diggante boobu dana fa def séminaire boo xam xam nga pédagogie ak xam-xamam séminaire trois mois kum ko defal doyal nga sëkk doo dëgg bu ko defee mu yewwi la bu nawet bi jeexee ba pare nañ nag njaboot gi dem leen ngeen seetante ngeen xamante pour ëllëg a tax dem na ba nga xam ne avant mu fiy jóge Sénégal nit man les quatre points cardinaux kenn nag njabootam mën naa jóge fu ne dem fa ca des te dina fa am ku mu seet dina am ku ko héberger dina am ñu mu fa waxtaanal loolu nga gis ne kon yitte ju kawee woon la ndax bu dee fii la nekkoon te doon yónni maam Ahmed Cissé Pire ci Chérif Younus dara ci sud réew mi te moom ñoom ñaar ñëpp a ngi dund nga xam ne kon yi ju kawee woon la moo tax mu ne xubayla cheikhi xubayla mawti avant muy faatu minhu laqad bana tabax na bi jiilin ci génération matinin bu solide fi tuqaa ci ragal yàlla li yu nasher yi pour ñoom it à leur tour ñu propagel ko liggéeyam moo tax ñun ñëpp fekkew ñu dund Mam Maodo euh, ñenn ñi sax fekkew ñu dund ñi fekkee dund Mam Maodo wala boog ñun lu néew lañ ci fekkee mais teewul gis nga legg boobu mu ngi continuer di dem ba tey te loolu mooy stratégie xam nga kon bu yarul woon génération bii ñuy wax jàngale ñooñu jàngal ñeneen ñooñu jàngal ñeneen defe naa kon moom lu mbiram xumba xumba itam bu fi jógee kenn du xamati fan la mu mujjoon ndax résistant yu bari euh, ñu ngi leen di tudd mais doo doo mën a wane ne lii lañ fi bàyyi wala lii lañ def mais moom dafa jàngale ñooñu jàngale ñoo ñu jàngale ba agsi ci ñun ñii mu yare ñoo ñu yare ñooñu yare ba mu agsi ci ñun de même mu bind fi ay téere yoo xam ne téere yaa ngi solide ba tey bu yàggul lañ defaraat diwaanam nga xam ne loolu tey la gën a set tey la gën a leer loolu moom mooy réussite am yàlla yàlla fayal ñu ko kon avant muy faatu defar na ay génération ñu di defar ñooñu di defar ba agsi fii fa cheikhun laqad samat lahu himmatun ila sama in faha ahlu sama tufaxiri mu mel ni nag yow da ngay jàpp kon benn stratège la woon rek benn doyen université la woon benn euh, université populaire la la diriger woon mu ne non boo demee ci wàllu niveau spiritualité am moo doon patron wu gars yi yàlla yi de moom yitteem dafa kawe woon ila sama in ba xaw a raw asamaan sax d'ailleurs boo demoon ci ëhlu sama tufaxir yi ñu ngi daan puukareewoo ñu ngi bëggee Seydi Hadj ma ci jamono ndax asamaan ñun ni ñuy amee ay actualité naan tey lii moo xew di joxe journal yi naan lii moo xew ñoom asamaan noonu lañu amee actualité bu ñuy waxtaane léeg-léeg nag ci journaux ya fay dox à la une ñu ñu ñu yaatal fa liggéeyu koo xam ne mu ngi fii di dund ci àdduna te boo watul ay bokkam sax duñ ko xam waaye demoon na moom Cheikh Al Hadj Maay ba waa asamaan di ko bége ngir liggéeyam bu sell ci diine ji ak tariqa bi avec désintéressement bi mu ci am ñu dem ba mag ñi jël place bi jox ko ko comme ni mu kaan waxee donte moom daawu ko tudde ci làmmiñam waaye dégg nañ ba muy ba muy jox sëñ Babacar si lekk bi mu ne mag ñi ma fi teg wax nañ ne place bi yow lañ fi euh, bëgg nga wuutu ma fi kon wane na moom li mu doon def du lu mu defal boppam luñ fuñ ko teg la moo tax mu ne laqad amar rijaala moom jiite na gaay yàlla bi xadratin ilahiyatin fi xiini yi xadratul ilahiya moom Seydi Hadj Malick moo doon patron moo doon ba ci jamonoom laa mun a këri amul kenn ko mën a weddi dégg nga rek góor gi Cheikh Saad bu abihi di doonoon xutbu li mu wax ci moom ne Seydi Hadj Malick euh, wa awraaduhu fi dikri ma misul wird madaarisuhu fi l ilmi xayru madaarisin méthode d' enseignement wu Seydi Hadj Malick gisaatuñ lu mel ni moom defe naa cent ans après neex naa gëm ndax Cheikh Saad bu abi 1917 la fi jóge ba tey mais gisaatuñu lu ko gën mu ne waa awraaduhu zikram itam fi zikri maamisuhu wirdu te kooku ki ko wax sëtu yonent bi la nit yàlla la lu nit di jaay Cheikh Saad bu abi yàlla jox nag ko waaye seede na lool ngir ñàkk ki ñaan moo tax mu ne fa cheikhun qiwaamul awliyaai wa fayduhum fa fi yadihi min nuuri qudsil mukabbiri ay mutakabbir mu ne nit yàlla yi dañuy am garant jamono ju ne dañuy am garant nga xam mooy seen patron bu ñu amee litige kooku mooy atte wala yu mel noonu Seydi Hajj Malik ci coobare yàlla époque am moom moo doon garant wu nitu yàlla yi moo leen taxaw woon moo leen itam abreuvé lumière euh, min nuuri qudsil mutakabbiri ci leeru yàlla subhanahu ndax moom jaam la comme ni mu ko waxee kon lépp lu muy revendiquer rek lu ko yàlla jox la mu doon ndénkaane ci moom te doxew ko woon waxew ko woon waaye yow mi nga xam ne yaay soppeem di nga xam ne sa sëriñ lu mu nëbbu nëbbu am na nag lu mu toogaale woon waaye yaram ak teg ginam tax na kenn xamu ko ci moom ba mu dem lu ci waay di xam rek yàlla moo la ciy ubbil bunta xamal la ci dara waaye moom wootew ko loolu nag mooy liñ ko war a royee yàllañ ko yàlla fayal ñu max di fadli wa juudihi defal ñu dégg ak topp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu